borom karaw gu ñu ñàkkul dara waye man ñàkk naa xaalis kii Mour yow Mour ba tey gëna go góor Sénégal yow xanaa sa yoonu gaal da ka fara bàyyi yo yoonu gaal bom bu ko bañé de da da ngeen ta takal jabar bu ngeen ma takalé jabar mo ndub wotuma génn sax su sun kër gis nga Modou bu ñu fontu jabar kën du la ko takal yow ya ko takal sa bopp dégg nga li wax garaaw gi tam ñoo ngi ne bu la waali wëyut nga dem ci gaal te boobu ba tey waali te yaa ngi ci dëkk bi da ngaa bëggut a dem rek muut. waaw kon wa la ngeen si si ñeel ma po rek kon. poro ci lan Modou. ci ci ci bi équipe mm, équipe A Sénégal bi ñoom sa sa Sadio ak ñoom bu ko kay def defee ma may leen chance bi deux mille vingt quatre ñu indiwaat Coupe d'Afrique wan wan wala ma dem ci ga ga gaamu dëgër na yow gis nga yow bu ñu la yóbboo ci équipe bi va tas équipe bi Alimane Aliou Cissé. monsieur. dafa naaj. bàyyi faale booy ku ne gara gara garaawul rek xamoo leen tey de dama ne ci ci po ma Mbàkke gis foofu nit ñi bari foofu trop. police yaa ngi fa gendarme yaa ngi fa ministère yaa ngi ko après ma di dégg ay maire maire naan mbaa rek di déewul mbaa di déewul si laa xool gis kam camion bu gaari foofu bopp baa nga noor ba am taat ba après ma geesu jëm ci ba Baye Fall nuyu ko nag na ko koy Fall la lan moo xew fii mën mu ne ma noo garaawul ma ma maa ko lax lan lan laal rek police ñëw na naan naan day def ko ko constat le ndëkkatee ba Baye ka bi mbëkkantee kabi ñu yoobi lu du xam nga rom rom rom ko koy Mbàkke boobu moom la ka camion bi du doon wër faseeg bàyyi bàyyi fa fa faal bi jég jéggi te tëli bi far far laal te kam camion bi euh, instant bi bi bi may wax ak yow ni sëfoor baa ngi urgent ngay muul bay fal bi bëgg camion bi camion bi noonu waaw lii de garaaw na monsieur waaw inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lala suñ sànc la benn mas maçon xaru tey. nga bi. ab Baye la yo yo yo yoreeloon quatre cent cinquante. chaque jour Baye Fall bi ñëw fa fayu ko ko du ko fay. de bërki nag Baye Fall bi dafaa ñëw mer lool ne ne ko gën gën a bu bu bu ma fa fayoo den dinaa la dóor ak puur dé démb ci ngoon la toog gis-gis ba baay baay baay faal bi ñëw di wëndeel ku kuur gi naan nii fekk ñoo ngi woon si septième étage ma ma maçon bi itam kii bëgg a rey ba bàyyi faal bi njëlaw bi bili bu ba bàyyi ba ba fa faal bi toll ci roron bi tolloog moom rek rek mu sànni ñoo ngi septième bi birig bi di naaw di naaw ba ne ci bopp kay Baye Fall bi tëll ba Baye Fall bi ne nii njañ jël da daggitu bi bi bi desoon ci bopp dóor dóor dóor ko ko ci suuf suuf waaye ko ku muy xapp suuf ma bi ci tiit rek cëpp teelu dee waaw Modou inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye benn benn kii ba ba baay baay baay faal faal rey ab maçon tey ngay la waaye suuf suñ suñ sa sa sànke la baay faal ba dafa romb ji ma jaal ma ma man maçon bi ne na ne ko kay ñëwal ñu wangante moom man maçon yi kon gi gis rek jàpp ne ñoo ñoo la gën a kay dëgër lay loxo bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi fa faal bi ne ko kay man man wong taxumaa jóg wong wongante ah, amuma digalaam wongante maçon bi ne ko léegi boo nangoo wo wo woowal sa kilifa man benn benn wong laa lay wax yow yow nga woŋ ma ñetti woŋ Baye Baye Fall bi woo kii kilifa mu mu ne ko wa waaw mais nag pas pastéef rek Baye Baye Fall bi ku coupé ne nii maçon bi njëkka la woŋ maçon bi ne ko bu ma la njëkkee woŋ yow doo woŋ bàyyi bàyyi fa faal bi ne ko noonu ñu njëkk a la wong rek te fekk maa ngi ko mu mën a leen di léegi dan dan dañ koy tiiraas jël aw da daal nii maçon bi jël fii ba bàyyi fa bi jël fii mais bi ma ko sànni affaire bi taaju ma maçon bi war koo njëkk a woo xàcc ba sës ne bàyyi faal bi raj ba bàyyi faal bi ne nii muuñ ne kay man maay woŋ mu ne ko waaw mun mu ne ko ñetti woŋ ma ma soo bi na kay waaw gan gaawal da damay kay ci béy bi ne nii wax bi ne ci parc si ne ko ma ma soo bi ja jaaxaan ni ne nii. gaa yi naan dee naa deewul si si loon ko jël yóbbu ko hôpital bu bu booy booy affaire bu yéeme boo xam ne men médecin bi toppatoo ko toppatoo ba ba ba mu ko commencé di gimmi ndëkkate ba Baye Baye baa ngay wër fii moom bi nekk hôpital bi bin ko kay entré xoola ba Baye Baye Fall bi di wër di wër di wër ba gis ko du du du dugg ci hôpital bi. ta taseeg ma ma maçon bi soog di xëpp xëppi naa nu ba bàyyi bàyyi <laughs> faal bi ne ko kay hey ma ma maçon bi xool ko mu ne des na ñaar maçon bi dee falay ma ma maçon bi nii la foofu la dee dee assur bi naka la. waaw dama def moom. booy xool can can can tag Baye Faye ñetti mbanaay ma ma ma macaron lan taal pour reere ko ben ben ba xam baay faal bu wëri dem lek lek ñetti ci mbax ma banaay macron yëpp ñu ñun ñoo dem ba war a yekk ba banagul ubbi dun dun sa sa fekk dara mais benn xale bu nekkoon foofu nañu kay ba baay faal bi ko lekk c'est la ne ñun ne leen ko nan de leen leen ko dok yóbbu fee hôpital biñ ko yóbbu hôpital donc docteur bi dugg dugg kay moom moom ci kay biir sa saal 15 minutes génn génn nama kay bu kas be be be may dem sama kay roro ron ka ji am don tokk pour pour man danan ba ba ba bay fa lo wacc na liggéen ndax ndax lem lem lem lek lek après rama di dem ci médecin bi mu dem demal ci biti fee ñu jëndal ko sa saal bi parce que daf dafa kay xëy xëy da dañ ko war a sa sampoye bi te te moom man tey du noppi naa dem dem dem ci seen cant bi nakam booy no noppi naa de dem dem ci xewu ba ba ba bàyyi fa tey can can cant gam ma demoon ah ña ñaari mban mban mban mban mbanaay ka kafe la ba bàyyi bàyyi fa fa fa paali segg ñam ñame ya, ge ge gen gen ga bam ya. ha ha mo mo ko sax reer